en tant que maire de Thiès mooy dalal jàmm ñëpp li may nuyoo léegi ci tubaab euh, gis ma woon maire de Thiès Nord maa koy nuyu euh, fii ñu nekk ci Thiès Nord la ko tey jii baat bi may yëkkati moom mënoon na ko yëkkati ndax fii ci Thiès Nord la ko fekk la nature de

deuxième bi le gouverneur Amadou Sy boobaak léegi ville de Thiès bokk ci ñi nga xam ne ñooy gën a fay di rembourser ba mën a am yaakaar yeneen juróom fukk wala lu ko ëpp dikkaat balaa yàgg kon partenariat boobu am solo soo ko jëlee dolli ci lii nag di tàmbali mënuñu lu dul rafetlu ko en tout cas ñuy ñaan jàmm ñi nga xam ne ñoom ñooy bénéficiaire u euh, oto yi ñu mën koo jariñoo mu jariñ li nga xam ne moo tax mu jóg mooy yóbbu nit ñi ak di leen indi ci ay conditions de sécurité parce que dugal nañ leen ci loo xam ne dëppoo na kanam ak kaaraange bu mat te loolu mu le ministre option boobu ngeen nekk dañ leen ci ñaanal leen ci jàppale ndax li ñu war ñun ñëpp mooy bàyyi xel ne bokk na tamit ci lii tax ay accident yu bëri mooy oto tamit yoo xam ne ñu yëpp a tegu ci yoon ba nga xam ne jaadu na li ngeen di def muy programme de remplacement progressif des véhicules yi nga xam ne wóolatuñu loolu ñun li ñu war mooy saluer ndax bëgguñu mu am ci suñu dëkk lu ñaaw te bëgguñu mu am fi bëgguñu mu am feneen. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp. di len gërëm te di len sant ci cérémonie bi nga xamni yalla natto nañu ñu bokk ci ñi nga xamni ñoo représenter taxi yi man maa ngi tudd Mamadou Gueye président collectif des taxis de UED ma ngi tàmbale ci nuyoo bi di nuyu monsieur le ministre Mansour Faye di ko sant te di ko gërëm te di ko ñaanal yalla ndax sans plus tarder occasion la ci ñun ñi nga xamni ñoy bénéficiaires yi yi wala renouvellement parc de transport ñu dal ci ministre bu mel ni ba fàttewuñu ñun waa transport routier surtout au niveau de l' aéroport di nuyoo monsieur le gouverneur waaye di beneen nuyoo spécial euh, suñu chef service régional monsieur Moustapha Tall ki nga xamante ne bii nii c' est un homme loo xamante ne bii nii chauffeur yi ak transporteurs ñu ci këyit wala jafe-jafe fii ci Thiès kon yéen autorités yi nga xam ñoo ngeen tey ñu ngi leen di jox suñu nuyoo di ko teg ci loxo. gouverneur de la région de Thiès di ko teg ci loxo monsieur le maire waaye doléance yi nga xam ne indale naa ko monsieur le ministre na nga ñu jege bu baax ci kàddu yi may waaj a di kàddu yi ngërëm ak cant yoo xamante ne bii nii président collectif yëpp ñoo ko ànd maase gërëmoon ko directeur bi nga xam ne moo fi nekkoon di directeur transport routier nga xam ne tey organisation yu bees yi fi am ci transport ci loxoom la jaare woon waaye di gërëm euh, sëriñ mi nga xamante monsieur Aw moo ko jiite ndax tey suñu taxawee fii ci transport bu bees ak xarale yu bees yi sëriñ moo encadré transporteurs yi encadré fi nga xamante secteur transport fa la jëmale kon nag bu sëriñ taxawee taxawaay boobu jaarale ko ci maîtrise ak yi nga xam ñoo ngi ko transport ci jamono yi nga xam dañoo bëgg def transport autrement wax dëgg yàlla jàpp na ñu gërëm leen seen kanam nga xam ne sa njaboot gi nga bàyyi ak secteur transport bi bàyyi ñu ne ginnaaw di nuyu suñ président regroupement bu membre yi xam ne ñoom laa leen yëpp fi nga xam ne ci lay tàmbalee ci discours bi mooy euh, cinquante taxes yu bees yi nga xamante ne na jaaree na ci autorité yi ñu financé ko ci DER kon taxawaay bii DER am ba accompagné ñu fas yéene jaaree ko ci matras ñu ngi ñaan yàlla mu gën yokk mais mu gën a law incha allah rabbi fas am cëslaay bu wér ci accompagner 2000 taxis yi nga xam ni moom lañ sañee fas yéene signé partenariat tey fii ci Thiès mais à travers l' international muy 14 régions Sénégal yi di wax ni tey jii chauffeur ca aéroport am nañ taxawaay bu mat sëkk mais am nañ fa ay manquement monsieur le ministre nga yóbbaale ko ndax am na concurrence déloyale bu fa nekk ñu di ko wax ISICA ak aérodap ñoom ay nabat lañ duñ ñuy def taxi euh, ay kii la ñuy jël foofu réservation mais taxaw nañ ci suñ kanam. té wax dëgg yàlla géej ay loxo du ko baax kon nag ngeen yóbbaale loolu ñu jàpp nañu ci loolu ndax concurrence de doyens la xaw na faa yéeme loolu. bismillahi rahmaani rahim. عرض سلام و ادب و احترام وقت بخیر دارم به مسائل همه عزیزانی که در جلسه شرف حضور دارن Au nom de Dieu, je vous dis de bonjour et soyez les bienvenus de tous les invités. Je suis très content de, participer à la cérémonie de, relancement des activités de Seigneur Auto aujourd'hui. جا داره که تشکر بکنم از همه بزرگوارانی که کمک کردن که این اقدام و فعالیت در مجددن در شرکت سینیران فعالیت آغاز بشه و این رو هم باید به فال نیک بگیریم از بابت اینکه زمان خیلی زیادی نیست که از پنجاه سالگی ارتباطات دیپلماتیک بین کشور ایران و سنگال میگذره و زمان خیلی زیادی هم باقی نمونده به روز 19 سپتامبر که روز دسامبر که این روز روز جهانی همکاری های مشترک بین کشورهای در حال توسعه هستش انسی جدا بومرسی تود زکتر تود پرسان که اون اده کوپره اوک نو پور arriver à cette cérémonie et euh, euh, aussi de relance des activités euh, de Seigneur Auto à Seigneur. Auto. surtout, c'est pas longtemps qu'il dépasse la date du cinquantenaire de coopération diplomatique des deux pays, République du Sénégal et République islamique de l'Iran. Et bientôt, ce sera 19 décembre, qui est de... مشترک کشورهای در حال توسعه است. La journée mondiale de coopération des pays امیدوارم که این رویداد به صلاح قرارگیری این مناسبت و این جلسه در بین این دو رویداد بتونه کمک های موثری در توسعه فعالیت های آتی بین ایران، کشور ایران و همینطور کشور سنگال انجام بشه. J'espère que de cette occasion sera, de, sera dans le cadre, dans le cadre de, de développer ces coopérations de, ainsi que de, de booster ces activités d'Océan Auto avec la coïncidence entre les deux dates que je vous ai, je vous ai dit. ما مجموعه اقداماتی رو انجام دادیم من عرایزم رو تو سه تا سرفست میخوام خدمت شما تقدیم بکنم بخش اول اقدامات انجام شده بخش دوم برنامه های در حال به انجام برنامه های صورت گرفته برای ادامه همکاری و در نهایت هم درخواستان Je dois brevet mon parties. D'abord, euh, les activités, les tentations qu'on a fait euh, jusqu'à présent, les programmes, et euh, ainsi euh, nos demandes euh, à la fin. در بخش اقدامات انجام شده ما خب کنوانسیون مشترک کنوانسیون به صلاح بین کشور ایران و سنگال رو به مدت هفت سال با کمک وزرای محترم دستور مستقیم رئیس جمهور محترم کشور سنگال Euh, à la, première activité, nous avons euh, signé la convention euh, entre, entre la société Sénégal Auto avec l'État du Sénégal pour continuer les activités de, la société Sénégal Auto au Sénégal. شرکت ایران خودرو در سنگال حضور پیدا کردن پاندان سه پریود تروا کرد ما یا به دو دلگاسیون و دلگاسیون دو گروه اندوستریل ایکو و سنگال هیئت مدیره ایکو مصوبه ای رو مبنی بر اعتبار 288 دستگاه سمند و همینطور 11 دستگاه نمودسا خودروهای جدید نمایشگاهی به مبلغ 2 میلیون دلار رو مصوب کرد Nous avons attribué un crédit de 2 millions de dollars pour le nombre de 288 taxis et ainsi 11 véhicules berlines particuliers pour exposition au Sénégal. از دیگر اقدامات انجام شده تامین اعتبار برای محصول کردن زمین های شرکت سنیران بوده Ainsi, nous avons fait de, le, le, crédit pour euh, برنامه علارم افزایش هزینه های حملی که اتفاق افتاد این رو هم هیئت مدیره ایران خودرو مسبب کرد که این میزان افزایش هم به عنوان اعتبار که شرکت سینران اوتو مسئول بشه Nous avons ainsi de considérer et valider, l'augmentation du prix du transport entre l'Iran et le Sénégal parmi le crédit de la société که نهایتا 48 دستگاه امروز اینجا ملاحظه میفرمایید که به تولید رسیده. Et que ce que vous voyez 48 taxis Euh, qui sont sur la chaîne de montage et qui sont présents ici. Je bu ñu santee le borom julli ci rasul yaa je suis ngi nuyu kilifa yi gouverneur de la région de Thiès le préfet du département ambassadeurs ambassadeur, fi nekk yëpp ambassadeur bu Iran nekk fii Sénégal ambassadeur

tey jii ah gis nañu ñu ngi lancé waat maanaam projet bu am solo mooy projet d' acquisition ñaari junni taxi tey balaa ñu fi génn am na ñeent fukki taxi ak juróom-ñett yoo xam ni dañ koy jox waa aéroport mu nekk ci politique boo xam ni politique président Macky Sall santaane mooy surtout renouvellement. parc automobile d'abord ñu mën a tàmbali le parc urbain muy taxi mu nekk nag loo xam ni lu am solo tey jii dañuy wane suñu détermination suñu pas-pas ak suñu taxawaay pour gunge projet bii nga xam ni non seulement njëriñ la pour askan bi waaye aussi njëriñ la pour acteurs yi comme nu ma ko waxee. tantaane président Macky Sall seen Iran dafa def maanaam jéego bu am solo parce que am usine de montage employé maanaam ay sénégalais ba noppi di dugal ci biir secteur bi ay taxes yu bees yoo xam ni maanaam ñu koy dawal bu ëllëgee daañu ci mën a jëlee njëriñ parce que taxes yi ñaar lay dawee mën na dawee essence comme mën na dawee ak gaz loolu.

le fonds de développement des transports terrestres est nga à président Macky Sall pour appeler Madame secteur qui ci nous boobu la signé convention ak pour que le processus de renouvellement des textes bi un le processus non seulement de mën a gën a mais un objectif de objectif yooyu lancer appel aux acteurs. Euh, surtout le responsable de ce pays, wax l'État, état bi nous état aussi état bi di de aussi di wax pour aussi population développement de, l'État. aussi pour cet outil bi ngeen ngeen parce que visage du Sénégal ba wacce aéroport ñëw gis taxi rafet ñu entretenu yu ba amul xoos-xoos amul nor-nor amul dara loolu kanamu dekk lay defal te lolu dañ leen ñaan ngeen gën ci taxaw ko bu ëllëgee képp ku wacce aéroport gis na dekk bi kat dëkk bu organisé la mel noonu nag daan ci gën mëna taxaw waxtaan ak yéen ñuy liggéey te bañ grève parce que grève mom yaakaar naa ni aussi xëy ci la bokk waye mën nañu kaa moytu donc euh, di remercier ñep encore une fois di remercier sama cabinet y a le secrétaire général du vidéo fatana ko lim sax ak l'ensemble de mes de mes de mes collaborateurs yi nga xamni ñoy ñooy pour que secteur bi nga xam ne dañu ko dégg ñu jox ko lépp lo xam ne am nañ ko euh, comme comme pas-pas ak comme liggéey parce que suñu acteurs yi ñuy liggéey ñuy ñu fi dee ñi tax ñuy liggéey dañoo jar jàppale dañoo na dañoo jar a gunge loolu nag gëm naa ñu daañ ci taxaw bu baax ak les secteurs avec le nouveau directeur nga xam ni mun amee développement du transport terrestre waaye aussi farlu sur la sécurité routière sécurité routière dafa nekk lu am solo te ku ko président de la République dénk muy Cheikh Oumar Gueye Gueye gis ngeen ni na liggéey bu baax maanaam ba mu jëlee euh, la direction askan PDS loolu baax na ci askan bi donc ñu ngi encouragé ñëpp may gërëm ñëpp nag vraiment dolli nuyoo ak gërëm sama maire sama maire jumeau muy Talasi la parce que la ville de Thiès ak Saint-Louis dañoo jumelé mu am taxawaay bu rafet ci liggéey boobu nga xam ni koy ñaanal lépp lu mu sëbal suñu borom ko ko may ko jàmm may ko réussir di nuyu ñi fi teew